jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñu nuyu suñu mbokk auditeurs yi ak suñu mbokk auditrices yi Abdou Khadre Seck moo nekk ci micro bi du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu euh, technique bi mbokk yi seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu tey nag euh, ñu dellu am mbégte dalal honorable député Nicolas Ndiaye. moom nag euh, mu nekk secretaire général lu euh, LD Ligue démocratique moom mooy secretaire général bi moom la ñu invité tey fa yéene waxtaan ak moom ci ponk yu bari ndax euh, député la te xam ngeen ne fan yi ñu génn dégg ngeen coowul mbënn mi nga xamante ni doon nañu wax ne ñenn ñi doon nañu sàkk ñu yóbbu ko assemblée nationale ngir ubbi fa enquête parlementaire moom député la danañu si waxtaan ak moom. lu mooy loolu tamit ci émission bi danañu waxtaanee lu jëm ci wàllum dialogue politique bi. wala ñu ne dialogue national bi euh, lu mu ci mën di doon danañu ci daal di euh, waxtaan ak moom ndax bokk na si ñi nga xam ne ñoom lañ tànn ci waa benn bokk yaakaar ngir ñu représenté benn bokk yaakaar si ñooñu la bokk danañu si waxtaan ak moom. dinañu waxtaan tamit euh, ak moom ci li nga xamante ni tey. moom moo jëm ci comité de suivi force Covid 19 ndax comité boobu ci la bokk monsieur Ndiaye am nañu mbégte dalal fii ci réew mi FM ñoo ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Abdou Khadre te di la sant di la gërëm ci invitation bi euh, ana waa LD ñu bàyyi la nga nuyu waa LD jaajëfal leen ndaw ñi ak jigéen ñi ak euh, góor ñi. waaw maa ngi nuyu waa LD yépp ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi di nuyu ndaw yi di nuyu membre secrétariat membre secrétariat exécutif permanent di nuyu waa bureau politique te fàttewuma suñ secretaire généraux de fédération yi nga xam ne nii ay militants yu am pas-pas lañ maanaam daal LD parti militant la militant bu nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant. jërëjëf euh, Nicolas Ndiaye honorable député euh, yow yaa nekk secrétaire général bu euh, LD. fi ñuy njëkkee laaj nag moom mooy LD parti la boo xamante ni. Euh, am na fi jafe-jafe comme ni fi parti yu bari amee jafe-jafe moo xam parti socialiste la am ñu jaar fii am ñu jaar fii euh, am na PDS. Euh, APR sax dañu am ay jafe-jafe euh, ba ci réew mi bu Idrissa Seck yéen waa LD tamit ñu gis ne euh, ay at ci ginnaaw jafe-jafe amoon na ba am ñoo xamante ni tey ñoo ngi fësal seen bopp mooy LD bi nga jiite ànd ji ak président Macky Sall am na ñeneen ñoo xamante ni ñoom gisuñu woon ne war nañoo ànd ak Macky Sall ba dem créé ji LD debout ndax loolu amul lenn lu mu leen yàqal wala lu mu leen néewal doole. déedéet parce que c'est pas la première fois muy am scission ci LD. 1979 bi même bi ñuy nekk ci clandestinité bi am na yoon woo xam ne nii dañ koo xàlloon ñeneen d'accorduñ ci woon ñu koy wooye fraction ñu génn dem seen yoon 2000 euh, 2005 euh, ñu ngi àndoon ak 2000 ñu ngi àndoon ak Abdoulaye Wade mais à partir de 2005 bi ñu waree tàggoo ak Abdoulaye Wade am na ñoo xam ne nii d'accorduñu ci woon ñoom ñu des ak Abdoulaye Wade muy xaajoo ñun ñu génn euh, dem ci opposition bi bi yoon aussi 2017 euh, ñun dañoo ne dañuy continuer ànd ak euh, ci élection législative yi dañuy continuer des ci benn Bokk Yaakaar ñu woote bureau politique ñu voté démocratiquement ñi bugg a des ci Benno Bokk Yaakaar ëpp malheureusement ñi nga xam ni nii gisewuñ ko woon noonu ñu dem seen yoon waaye LD mu ngi fa mu nekkoon mu ngi dëgër ba tey mu ngi continuer yoonam bi mu xalloon ba tey. Euh, jërëjëf euh, Nicolas Ndiaye comme ni nga ko waxee sànq ay jamono àndoon ngeen ak Abdoulaye Wade jamono ji muy doog di jot ci Sénégal. ngeen dem ba nga xamante ne jàpp ngeen ne euh, li ngeen doon xaar euh, wala dem ngeen ba mënatu leen a ànd ngeen ber seen yoon bopp euh, LD ba léegi est-ce que réellement li mu doon xaar ci président Macky Sall wala li taxoon mu jàppale ko ba léegi LD maa ngi koy gis ci président Macky Sall. loolu it amul benn problème li tax ñu jàppalewoon woon sàll ca départ ba depuis 2012 ñu ngi koy gis ba tey ci président Macky léegi nag euh, perfection amul ci àdduna si c'est-à-dire euh, alliance mariage la rek ci mariage bi dina am lu la neex di la am lu la naqari mais loolu dañ koy waxtaane fiñ ko war a waxtaane ci biir wa euh, dafa am waxtaan biti ci biti am waxtaan ci biir néeg mais globalement ñu ngi ànd ak président Macky Sall liñ doon xaar ci président Macky Sall ñu ngi koy gis ba tey léegi nag lépp loo xam ne nii naqari nañu dañ koy waxtaan ci biir kuréel yi nga xam ne nii ñooy Benno Bokk Yaakaar mais l'essentiel bi daal mi moom mën a wax mooy compagnonnage bi ñu sumboo nag Macky Sall 2012 mu ngi dox ba tey te ñu ngi ciy gis suñu bopp su amee waxtaan dañu ciy woo secretariat exécutif permanent bi nga xam ne nii juróom-ñaari nit la ñun LD ñu ngi ciy bokk suñu wootee conférence des leaders aussi diisoo ñun LD dañu ciy bokk bon pour ñun loolu mooy l'essentiel maanaam président Macky mu ngi doxal li ñu doon xaar ci moom mu ngi koy def ñun bokk nañ ci kuréel yi nga xam ne nii ñoo constitué Benno Bokk Yaakaar bon macha allah léegi nag euh, perfection maanaam daal euh, euh, perfection amul amul fen donc li nga xam ne nii war nañ koo wax ñu ngi koy wax ci kuréel yi ñu ko war a waxee. Nicolas Ndiaye honorable député sànq da ngaa wax ne li nga xam ne moo leen metti du ngeen ko waxtaanee ci bitti mais da fi ngeen ko war a waxtaanee da ngeen ko fa waxtaanee ndax mën nañoo xam lan moo leen di faral di metti yéen waa LD ci ànd bi ngeen ànd ak benn bokk yaakaar. mooy c'est que fi ñu toll nii li ma la wax mooy loolu c'est-à-dire su amee loo xam ne nii neexuñu ci alliance bi du ñu ñëw ci rajo bi ak ci télé bi naan dañu koy wax ñu ngi bokk ci kuréelu Benno Bokk Yaakaar bon ci kuréelu Benno Bokk Yaakaar lañ koy war a waxe ñu ngi ko fay waxe ñu ngi fépp fu ñu woo LD dafay wax xalaatam ni mu ko waree pour avancer loo réew mi mais est-ce que tey euh, LD Euh, ndax ñu bari tey dañ koy wax ne Macky Sall en tant que chef de parti lépp lu muy cëralaate APR la si ëpp lu muy cëral parti yu bari dañuy faral di kaas lu mel noonu moo xam si kawal si suuf est-ce que yéen waa LD euh, honorable député euh, Nicolas Ndiaye est-ce que considération bi nga xamante ni tey moom la leen président Macky Sall war a jox en tant que gagnendoo ànd euh, gérer ndoo est-ce que considération boobu réellement yéen waa LD jox nañ leen ko ndax biir LD ñëpp xam nañ ne am nañu ay cadre ci wàllum nomination ak yu demee noonu ndax jox nañ leen loolu considération boobu. jox nañ ñu considération boobu amul benn problème ci loolu léegi nag dama bëgg a préciser lenn rek mooy bi ñuy ànd ak Macky Sall 2012 ba ñu falaat ko 2019 li ñu taxoon a jóg. du ay poste ministre mbaa ay poste député li ñu doyoon ci Macky Sall 2012 mooy programme bi nga xam ne nii moom la ñu tëraloon pour doxal réew mi 2019 aussi mooy programme bi ñu tëraloon pour deuxième mandat bi léegi nag loolu moo ñu yitteel léegi nag su ci poste député àndee ak ay poste ministre xayrun waaye même su ci àndul te programme bi mu tëraloon doxalin bi mu tëraloon fas yéene woon ñu ngi ciy ànd même suñu amul dara dinañ ci ànd ak moom léegi nag su ci leneen yokkoo bénéfice lay doon ci ñun te dañ koy rafetlu d' accord mais mais euh, honorable député euh, euh, ndaw ñi nga xam ne tey ñoo bokk LD ak jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk LD bu ñu sañoon ñoom tim gis seen bopp ci li nga xamante ni tey moom lañ yore réew mi ci ay poste nomination loolu euh, ay information la yoo xam ne ñun am nañu ko ci biir LD que ne am na ci ay ndaw ak ay cadre yoo xam ne bëgg nañoo gën a gis seen bopp ci ci benn bokk yaakaar. bien sûr ñun suñu sañoon suñu poste député yi ëpp li li ñu am suñu post ministre yi ëpp. suñu poste directeur généraux yi ëpp suñu sañoon loolu mu ëpp waaye li ma la bëgg a wax mooy yuq bi ànduñook Macky pour loolu loolu nag su ci yokkoo ñu jël waaye ànduñoog Macky pour loolu. yéen a sàkku. waaw ñu ngi koy sàkku fi ñu toll nii lépp lu ñu mën a am ci ci nguur gi. parce que LD partie cadre la. am nañ ay compétence ñoo xam ne nii mun nañoo nekk ministre mun nañoo nekk député mun nañoo nekk ay directeurs généraux ak yeneen yeneen i poste suñu ko suñu suñu yokkalee moo ñu gënal waaye même suñu yokkalul même suñu amuloon te ànd ak Macky sàll te d'accord ak Macky Sall ci doxalunu réew mi dinañ ànd ak moom. Euh, euh, honorable député euh, LD parti la boo xam ne am na ay ñaawteef yu bari daanaka naqarlu. ci ni nga xamante ni tey moom la ñu yoree réew mi mais ci Sénégal tey fii ñu toll yéen ngeen ànd ak président Macky Sall dafay am loo xam ne dafay faral di xew du ñu si dégg euh, waa LD peut-être seen position man ngeen ko joxe euh, fa ngeen di dajee mais misaal bi rek mooy LD yéen bokkoon ngeen si ñi doon naqarlu ne logiquement rek euh, ak moralement rek réew am na àpp boo xamante ni boo ko jiitee réew danga nga war a bàyyi dem. ñenn ñi tey euh, ndax ñu doon xeex Ablaye Wade 2012 yéen ci ngeen bokk ne bëgg burta am ñetteelu euh, ñetteelu mandat euh, LD mu nekkoon parti boo xam ne dañ doon taxaw Sénégalais yi naw leen lool ñetteelu mandat Macky Sall bi ñuy jaabaa jonge di ko wax moralement lan moo ci sa xalaat. waaw foofu damay tënku ci li président Macky wax te pour man li mu wax yenu na maanaa 2012 2019 lañ ma fal ñu ngi ci 2020 wax yi nga xam ne nii day mun a indi mun naa indi xaajoo ci suñu biir nañ ko tegagum liggéey li tax ñu fal ma déglul bu baax li ma lay wax. Mm-hmm, mm-hmm. troisième mandat mbaa ñu def euh, Macky def troisième mandat mille vingt 2024 la. mille 2019 lañ ko fal waay waay waay koo xam ne nii mille 2019 lañ ko fal mu def benn at rek est-ce que mënuñoo teg ci suuf waxtaan woo xam ne nii dina indi xaajoo ci suñ biir indi jiixi jaaxa ci suñu biir te ñu jublu li tax ñu fal ñu parce que ñu mag li euh, Macky dafa am lu mu waxanteeg peuple sénégalais bi ba ñu falaat ko loolu moo ëpp importance di wax loo xam ne nii fii ak ñeenti at juróomi at lay ñëw man foog naa ne loolu yenu na maanaa loolu jàddu na moo tax fi ñu toll nii wax jooju dañ koy tegagum ci suuf ba waxam jot parce que am réew wax ju jot nga war a wax soo waxul wax ji jot di wax li nar a ñëw dans quatre ans cinq ans mu nar a indi xaajoo ci seeni biir mu nar indi ay coow yoo xam ne ni amuñu njëriñ tenku ci li nga xam ne nii looloo tax ñu fal la looloo ëpp njëriñ te man gis naa ne jaadu na yenu na maanaa. Euh, honorable député 2012 euh, président Macky Sall dafa bokkoon si ñi xeex ñetteelu mandat Abdoulaye Wade ba mu koy naqarlu boole ci programme am. ne su ma yoree réew mi day ñetteelu mandat danañ ko fi jëlee bu paasee mbirum constitution ku xeex ñetteelu mandat toog ci am réew est-ce que kooku xalaat nañ walla xel xalaat na muy def beneen mandat est-ce que su waxoon ne du damay def beneen mandat wala du def beneen mandat est-ce que du coow li du woon dafay gën a euh, coow li fii ñu fi mu yegg nii du fa yegg kon. xam nga ñetteelu mandat bi ñu ngi ko xeex 2011. 2011 waaw. à un an des élections 2012 fi ñu toll nii ñu ngi ci 2020 bi ñu falee Macky Sall 2010 2019 lañ fal Macky Sall. mu def benn at. des 4 5 4 mu des 4 ans. waay waay waay nga foog ni jublu ci liggéey bi nga xam ne nii moom la Macky Sall moom la Macky diggee. ak sénégalais yi. loolu ëppul maanaa. wax joo xam ne nii ñëwagul. léegi nag bés bu ñëwee. Uh-huh. ku ci nekk dina ci wax. ku ci ñun dinañ dajale suñu kuréel yi. ku ci uh-huh. nekk jël ci position. mais mais pourtant waa APR dañ si wax waa benn bokk yaakaar ku si mel ne ay miiru ñing waaw loolu xalaatu ay miiru ñing la man duma ay miiru ñing mënuma wax ci waxu ay miiru ñing ji man LD la damay wax position. LD fi ñu toll ni Macky Sall 2019 lañ ko fal ñu ngi ci 2020 dañuy jublu ci li nga xam ne nii moo tax ñu fal Macky Sall foog naa ne looloo gën a yitteel sénégalais yi euh, loolooy jaadu looloo nekk yow est-ce que position bi LD amoon 2012 ci xeex ñetteelu mandat est-ce que 2024 bu ñëwoon Macky Sall dafa bëgg am beneen mandat est-ce que même position la LD di taxaw xaaral xaaral rek ba mu ñëw xaaral bi wax ji jot su su wax ji jotee. LD dina réunir ay kuréelam jël position bi mu. nga xam ne nii moom la war a jël. jërëjëf euh, honorable député euh, Nicolas Ndiaye yow yaay secretaire général bu euh, LD ñu wax ci li nga xamante ni nag bu yàggutoo Ndiaye dafa daal di xew ndax dañu ko bëgg a toppalante noonu muy conseil présidentiel bi président Macky Sall doon am ngir nag ñu relancer sunu économie réew. Euh, économie réew mii mu ni mu nërmeeloo ak euh, conseil présidentiel bi président Macky Sall wax ne euh, lu jege quinze mille milliards lañ si fas yéenee def mu ne nag danañu def ay investissement de réforme secteur yëpp nee na dañ koy dañ seen ay réforme ay yeesal wax na lu jëm ci wàllum mbay mi wàllum élevage wàllum wàllum énergie yow ndax jàpp nga ne programme bi président Macky Sall wax doy na la pour suñu économie mën a jugaat doy na ma sëkk te loolu dafay gën a dëgëral li ñu wax léegi xam nga di wax affaire u troisième mandat fekk suñ économie baa ngi nërmeelu Covid bi jaar na fi inondation yi jaar na fi ñu war a redresser économie bi xam nga ne waxtaan woowu moo ëpp solo beneen waxtaan waxtaan woo xam ne nii dafay indi xaajaloo mbaa discussion ci suñu biir. man démocratie la Sénégal démocratie la. waaw Sénégal démocratie la waaye waxtaan li ëpp fayda li ëpp fulla li nga xam ne nii jot na moo gën man programme de relance économique bi président Macky Sall euh, tëgg. boole ci presque ay téeméer euh, lu ëpp téeméeri participants. doy na ma parce que ni ma ko gisee dañoo war a def ay investissement moo tax mu ne quatorze mille sept cent douze milliards pour redresser économie bi dooleel secteur privé bi de dooleel éducation bi ah investir ci agriculture defaraat pro euh, santé bi parce que gis nañu importance su santé bi ak Covid bi defaraat éducation bi basé ko ci ay performance loolu doy na ma sëkk. d'accord waaw euh, honorable député dafa am lu Macky Sall wax président Macky Sall wax ci euh, conseil présidentiel bi ci économie réew mi loo xamante ni man euh, man gëwuma loolu mu wax man ci sama xalaat man gëwuma loolu mu wax ndax daf ne fii ak 2023 suñu taux de croissance dina ko yóbbu. 13 euh, pour cent 13 pour cent. Euh, tey moom yor na Sénégal presque lu mat huit ans ku yor Sénégal lu mat huit ans euh, taux de croissance bi mënoo see yokk àggul euh, sax dix pour cent nan nga ko mën a fii ak quatre ans mooy de quatre ans nan nga ko mën a yóbbee treize pour cent loolu tamit est-ce que xel nangu na loolu. man pour man xel nangu na loolu li ko li ministre de l'économie wax Hott. Mhm. le ministre ot ministre de l'économie Amadou Hott daf maa doy dafa ne croissance su xale moo gën a gaaw ni croissance su mag fi ñu toll nii suñ économie bi dafa xaw a nërmeelu. Mhm, dafa nërmeelu ba 0,7 pour cent. mais nërmeelu la. waaw dafa nërmeelu. Ah, mais 0,7 pour cent. Mhm. à partir de de ce niveau là. Mhm. croissance bi mun naa ëpp. mun naa gën a gaaw temps bi mu nekkee ay 7 pour cent maanaam daal croissance su xale moo gën a gaaw croissance su adulte léegi nag yow mun nga koo bañ a gëm man ma gëm ko léegi ñu xaar ëllëg ak si biir li muy joxe fi ñu toll nii 2023 ñëwagul des na ñetti at li ci kanam raw li bët su dee mun nañ ko. dinañ fa yegg su dee mënuñ ko it dinañ ko constater mais man ni ma ko gisee yéene bi rek déjà c'est quelque chose jóge ci croissance su 0,7 pour cent dem en 2023 croissance su 13 pour cent pour man yéene bi rek c'est déjà quelque chose te foog gëm naa ne dinañ fa mos dinañ fa yegg. Euh, jërëjëf euh, honorable député euh, Nicolas Ndiaye mbokk yi yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jota bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu ñu wax ci li nga xamante ni nag moom mooy Covid 19 bi ba tey ak sunu économie bi réew mi ni mu ni mu nërmeeloo yow nga bokk ci comité de suivi force Covid 19 muy kuréel googu nga xamante ne tey général François Ndiaye moo ko jiite kuréel googu nag li tax ñu sos ko. Euh, lan mooy liggéeyam ak lan moo tax ñu sos ko euh, yow nga bokk si ñi nga xamante ni tey euh, représentant nga fa. waaw d'abord damay gërëm la ma fa nekk mooy dama faa représenter majorité présidentielle. Benno Bokk Yaakaar Bokk Yaakaar. Mhm. damay gërëm le président Macky Sall mi nga xam ne ni moom moo proposé moom moo déterminé ña fa nekk. Mhm. deuxièmement di gërëm aussi. général François Ndiaye mi jiite liggéey bi dëgg-dëgg mu ngi def liggéey bi ni mu ware non seulement moom mais ñi ñi seq liggéey bi yëpp te ñi seq liggéey bi dañoo bari majorité présidentielle a nga fa opposition mu nga fa société civile mu nga fa non aligné yi ñu nga fa secteur privé bi ñu nga fa maanaam daal dafa am diversité ci ñi ko ña fa bokk te ñoom ñëpp dañoo def benn dànk amul benn divergence ci suñu biir ñu ngi def liggéey bi ni mu waree waaw léegi nag comité de suivi lan mooy liggéey bi maanaam président Macky Sall dafa joxe mille milliards pour xeex euh, feebar bi mbas mi mille milliards yooyu fan la ñu dugg loolu la ñuy càmbar ensuite lan mooy impactu xeex boobu mille milliards yi ci population bi loolu mooy suñu liggéey duñu commission de contrôle mais commission de suivi la ñu maanaam contrôle bi seet càmbar bokk na ci waaye aussi topp mbir mi lépp loo xam ne nii suñu xalaat lañu war ko rectifier bokk na ci suñu liggéey menn xel moo xam ne nii pour améliorer ni mbir miy doxe ñu ngi ci te macha allah ñu ngi koy def bu baax. d'accord euh, Nicolas Ndiaye yow nga bokk ci euh, commité de suivi force Covid 19 euh, 1000 milliards yooyu noonu euh, ndax mën nañoo xam yan structure de l'État euh, wala yan ministère yoo xamante ni yéen euh, demagun ngeen fa. demagum nañ ci ministère yu baree baree bare foog naa presque li ñu dese ci ministère euh, bareetul dem nañ ci quatorze régions Sénégal yi dem nañ ci hôpital Dantec ak euh, kuréel yu baree baree bare bare daal dem nañ ah waaw ñi ñu jox xaalis dem nañ fa ñoom ñu ngi ñuy jox këyit ñu ngi ñuy ñu ngi wax ak ñun waaw est-ce que nañ leen li ñu xam nga mënuma mënumaa wax ne doy nañu mbaa doyuñu xam nga kañ lay kañ lañuy mën a wax suñu dajalee ñépp ku ci nekk wax xalaatam ñu bind ko ci rapport jox ko président de la république waaye man amuma euh, amuma sañ-sañ wax fii ci rajo bi ndax doy na ñoom doyuñu loolu su ma ko defee sama xalaatu bopp la la laay wax te loolu d'abord amaguma élément yépp pour wax sama xalaatu bopp ñaareel bi waruma koo wax sax parce que rapport bi dañ koy jox président de la république loolu la ñu xaatim ci suñu réglement intérieur yi ak ci décret bi. Euh, ndax mën nañoo xam tey euh, comité bi bu demoon tey ci benn ministère liggéey bi nan lay demee ministre bi en tant que tel euh, moo koy jox ay justification wala élément yi nga xam ne ñooy service su ministère bi. waaw suñu demee ci ministère bi ministère bi day wax ak ñun ministre bi jox ñu kayit këyit ñu ko laaj. yan këyit ngeen koy faral di laaj. këyit yépp yoo xam ne nii war nañ koo soxla pour fi mu euh, li ñu ko jox fi mu jaar. comme par exemple tey euh, ma joxe exemple ci ministère de la justice su ngeen ko joxoon tey par exemple tey lu toll ci euh, exemple laa joxe lu toll ci 200 wala 400 millions bu ngeen demee daleen di wax 400 millions yi fan la dugg lépp jox leen ay fa ay këyit. waaw. daf ñuy wax cent millions yooyu fan la dugg nan la ko jëfandikoo. mu jox leen kayit ngeen waaw rapport waaw ñu boole ko ci suñu rapport. dem jox ko président après. waaw suñu rapport bi suñu mission bi su jeexee rapport bi dañ koy jox président de la. est-ce que liggéey bu yomb la ngeen dem ci ministère yeneen structures yi. non du liggéey bu yomb waaye ñu ngi koy def. Euh, no est-ce que yombalal nañ leen ko ñi ngeen gi fekki. waaw mun naa wax ne général euh, globalement yombalal nañ ñu ko vraiment fépp fu ñu dem. amul benn exception amuñu benn problème daal ñu ngi def liggéey bi. Euh, ministre Mansour fay dama liir ci presse bi fan yële jàll mën na ay weer ñu ne yéen laajoon ngeen ko euh, nan la jëfandikoo euh, xaalis bi mais joxu gu leen woon ay firnde ndax loolu mën nga ñu si dellu si. non mënuma cee dellu si c'est-à-dire li ci biir yépp awma droit wax ko parce que benn duma porte-parole ñaareel bi rapport bi ñuy def. président de la république lañ koy jébbal c'est-à-dire amuñu droit amuñu sañ-sañ wax ci rajo bi lii ak lee ak lee rapport bi président de la république lañ ko war a jébbal app bi su jotee dinañ bind suñu rapport jébbal ko président de la république lépp loo xam ne nii mu ngi ci biir dinañ ko ko wax. Euh, Mansour Faye 69 milliards lañ ko joxoon mu nekk ministère bi nga xamante ni tey moo si ëppale euh, moo si ëppale coow. ndax euh, am na ñoo xamante ni dañoo jàpp ne xaalis bi nga xamante ni moom lañ ko dénk euh, lépp leerul ba am ñu ko jotee porte plainte euh, Nicolas Ndiaye honorable député nga bokk ci comité de suivi force Covid 19 est-ce que bi ngeen demee ci ministère bi Mansour Faye jiite est-ce que Mansour fay recevoir na leen. recevoir nañu wax ak ñun léegi nag am na loo xam ne nii waruma cee am wax ci rajo yi mbaa ci télé bi. mbir mi yëpp ni mu demee et cetera loolu président de la république lañ ko war a wax waruñ koo wax ci rajo bi ba ci télé loolu awma dara loo xam ne nii war naa ko cee wax fii waruma cee wax dara dara dara c'est-à-dire président de la république la ñu war a jox rapport bi pour ñun waruñoo nekk ci télé ci rajo bi di wax lii mbaalee d' accord euh, léegi euh, comité de suivi force Covid 19 boobu euh, nee nga def ngeen ay tournée euh, il faut mu am budget budget bi ñaata la. Euh, une centaine de million la tournée ci kii bi. budget waaw. loolu bari na waxoon nañu déedéet loolu doyul sax doyul xam nga fi ñu toll nii ñun ñii di liggéey ba léegi dërëm dërëm dërëm. amuñu ci dërëm dërëm dërëm pour euh, ñun dañuy liggéey bénévolement mais sooy dem di nga loué ay oto di nga. jënd carburant di nga jënd carburant. di nga di nga am ay oto di nga euh, di nga jënd carburant di nga fanaan ci otel et cetera et cetera pour man budget boobu sax doyul. mais plus de cent millions loolu cent millions dafa bëri de Nicolas cent million xam nga mënoon ne cent million bari na mbaa bariwul te xamoo dayuwaayu liggéey bi xam nga kenn cent million tour wi xëj na moo bari su doon kenn nit day dugg ci poosu kenn nit mais commission buy liggéey trois quatre cinq six mois di déplacé wu di fanaan ci hôtel di. wut ay euh, di euh, di wut ay instruments yoo xam ne nii moom la moom la liggéey bi soxla cent million bariwul dara dara oh man foog naa ne lu néew la sax. mais euh, duñ leen mais duñ leen fay wala wala. bu ngeen wala ah. day dem amul fay ñun dañuy liggéey bénévolement. mais bu ngeen demee def tournée bu ñëwee il faut ñu jox leen dara xanaa. ngeen déedéet loolu laa ne dañuy liggéey bénévolement dërëm dërëm. d'accord mais est-ce que tamit honorable député. rapport bi nga xamante ni tey moom ngeen xalaat yéen ngeen jébbal ko ki nga xam ne tey moom mooy président Macky Sall ndax ni ma la déggee mooy rapport la boo xam ne euh, sénégal yi soo moytuwulee mën nañoo bañ a xam lan moo nekk ci ci ci biir rapport bi est-ce que jàpp nga ne rapport boobu danañ ko fësal wala lépp luñ jàpp ne ay ndëngte la euh, bu la yoon waree topp dina topp ñu ko def ndax yow xalaat nga loolu. xalaat naa loolu li tax président Macky Sall tànn. Euh, ay nit ñoo xam ne nii dañoo jóge ci kuréel yu bari opposition su doon majorité présidentielle rek mooy def réunion de euh, mooy def commu euh, mooy def suivi bi mun na nañoo wax mais du majorité présidentielle rek opposition bi ci la ñu bokk société civile ci la ñu bokk non aligné yi ci la ñu bokk homme d'affaires yi ci la ñu bokk organisation des droits de l'homme ci la ñu bokk ñooñu yëpp pour man diversité boobu mooy d'abord comité bi am dina am crédit am na crédibilité deuxièmement comité bi am na objectivité ñetteel bi ki ko tànn loolu la ci jublu woon c'est-à-dire mu am crédibilité am objectivité jox ko rapport boo xam ne nii c'est un rapport fiable jërëjëf euh, honorable député il faut moo nga baal ma rek ma laajaat la euh, ma laajaat la beneen beneen beneen laaj euh, ci ci ministre Mansour Faye mënul ñàkk ndax dimanche passé dafa wax ci benn rajo mu ne moom amul lenn lu muy rendre compte comité de suivi force Covid 19 loolu la ministre Mansour Faye wax lan moo ci sa xalaat en tant que ku bokk ci comité de suivi force Covid 19. loolu du xam nga fi ñu toll nii. duma ci wax sama xalaat dégg nga ko ni ma ko déggee sama xalaat dama koy wax fa ma ko war a waxe du ci tele bi mbaa ci rajo laa war a wax sama xalaat ci loolu am na kuréel boo xam ne nii foofa laa bokk foofa laa war a waxe sama xalaat jërëjëf euh, honorable député euh, Nicolas Ndiaye euh, moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot 15h jàpp 16h ñu wax nag ci li nga xam ne ndax il faut boo gisee ñu waxtaan ci lii yow da nga bokk ci comité de suivi force Covid 19 bokk si ñu fi représenté majorité bi benn Bokk Yaakaar. léegi tamit ñu ñëw ci wàllum inondation yi nga xamante ni tey coow li bari na ndax yow député nga. ba pare commission d'information bi ñu teg assemblée national tamit euh, bokk nga ci euh, mbënn mi bi mu amee ñu ne 750 milliards wala lu ko ëpp euh, lañ si dugal wala lañu pare pour def ko ci wala am na lu ñu si jot dugal ñenn ñi ci opposition bi dañu jàpp ne dafa am ay luubal yoo xam ne daf ci am. ñenn ci société civile bi jàpp ne war nañ see mën a ubbi ab enquête parlementaire. ñi woy politique yi ñu si mel ni PDS ñoom bind assemblée nationale ngir ñu ubbi si enquête parlementaire déglu ci ministre yi nga xam ne njort nañ ne laale nañ si directement la indirectement yow en tant que député en tant que député ñuy sàkku enquête parlementaire lan moo ci sa xalaat. li ci sama xalaat mooy xalaatu Benno Bokk Yaakaar c'est-à-dire ubbi commission d'enquête parlementaire jaru ko. parce que commission d'enquête parlementaire d'abord dafa diis deuxièmement ñu ngi ci intercession maanaam fi ñu toll nii député yépp ku ci nekk yaa ngi sa kër session bi ubbeegut en attendant session bi ubbi li ci li ci war man ni ma ko gisee mooy li ñu def maanaam ubbi benn commission d'information parlementaire c'est-à-dire tànn député yoo xam ne nii képp fépp foo xam ne nii daal euh, mun nañ faa jëlee information ci affaire mbënd bi parce que affaire mbënd bi de c'est dramatique maanaam daal vraiment loo xam ne nii lu metti la mais dañoo war a considérer ne dafa am ay changement climatique yoo xam ne nii dañuy intervenir quantité taw bi ñu jot mooy quantité taw bi ñu doon jot en deux mois bon war nañoo seet euh, nan la ñuy euh, seete mbir mi daal am na loo xam ne ni gouvernement bi def na ko am na fu doon mbënn fu doon taa amatul ndox am na fu doon taa mu ngi taa ba tey ñu def commission d'enquête parlementaire pour seet càmbar loolu yépp daal seet nan la demee léegi aussi 750 milliards yi ñu waxoon parlementaire nga d'accord. waaw parlementaire. non d'accord ma enquête parlementaire mission d'information commission d'information bi laa d'accord. d'accord mais mais mais mais Nicolas Ndiaye danañ ñëw ci euh, mbënn mi comme ni nga ko expliqué sànq mais dañu lay laaj yow en tant que député mais xam nga euh, tey bu ngeen ñu bëggee gëmloo nañu mission d'information yéen fan ngeen mën a jëlee information lu dul ci ministère bi nga xamante ni tey moom lañ ko dénk te Serigne Mbaye Thiam. Euh, jiite ko ndax tey kam fa wuutu daf ko état continuité la daf koy jox lépp loo xamante ni tey papier bu mu soxla la wala loo xamante ni concerné na projet boobu nga xamante ni jëmoon na ci wàllu mbënd mi wala kuréel gi ñu ko dénk ci biir ministère boobu di ONAS foofu ngeen mën a jëlee information lan moo tax munu leen a woolu euh, ministre bi ci boppam wala ki jiite ONAS ngeen déglu ko ngir am information. mais du foofu rek lañ mën a jëlee information. comme parce que mbënd mi ndox mi la. loolu xaj na ONAS moo koy euh, moo koy euh, toppatoo ndoxum taw mi mais ci plan décennal de lutte contre les inondations dañoo waxoon affaire restructuration loolu ministère de l'urbanisme la moo koy toppatoo ci plan décennal de lutte contre les inondations dañoo waroon euh, dañoo dafa amoon état des maanaam lan moo nekkoon yoonu ndox mi parce que ni ñuy waxee yoon ni ñu ni ko wolof di wax ndox du bàyyi yoonam loolu su ñu demee direction aménagement du territoire direction agence nationale aménagement du territoire foofu lañ ko war a wax foofu lañ ko war a laajte quantité ndox mi daanu mi daanu le cinq et le 6 loolu ANACIM lañ ko war a régler et c'est-à-dire du benn ministère rek la ñuy jëlee information. affaire mbënd mi dafa laal ministère yu bari. mais mais mais Nicolas Ndiaye man li ma la laaj ak li nga tontu nii pour man euh, am na différence. Hmm. ndax yow yaa ngi may wax euh, lan nga jàpp ne tey lan lañ def ba mbënn mi mbënd mi am lan moo ko waral wala lan lañ waroon def te te defuñu ko mais 750 milliards yi pour ngeen am information ba xam jëfandikoo nañ ko wala jëfandikoo wuñ ko. fan ngeen di dem ndax tey par exemple tey bi ngeen bëggee am information ci ministère de l'urbanisme ñaata lañ ko xaalis bi ñu ko jox fan la ko dugal da ngeen dem ba ci moom mu wan leen lu leer naññi tey bu ngeen bëggee information ci 750 milliards yi dugal nañ ko fi wala dugaluñ ko fi fan ngeen di dem exactement ak fan ngeen di jëlee information. loolu laa la wax c'est-à-dire xam nga d'abord cinquante milliards yi nekkul ne. dañoo defoon sept cent cinquante mille sept cent cinquante milliards ci benn coffre foor di ko jël petit à petit du du loolu sept cent cinquante milliards yi prévision la woon léegi nag ñun suñu càmbar mooy prévision boobu lañ lañ ci jot a def lan lañ ci defagul lan lañ ci jot a def lan lañ ci defagul du ci benn structure rek ONAS rek nga koy mën a xamee war ngaa dem ONAS naam. waaye 750 milliards yi ñu prévoir oon dañu moo tax ma jox la exemple 750 milliards yooyu ñu prévoir oon dañ cee boole woon restructuration maanaam nit ñi dëkk ci xur yi ñu jële leen fi yóbbu leen feneen foo xam ne nii du du taa ndox ma du ma du fa am loolu du ministère euh, assenissement et eau la ñu war a jële euh, la ñu war a jëlee information yooyu fi ñu ko war a jëlee mooy ministère de l'urbanisme ma ne la ci 750 milliards yooyu ñu prévoir oon état des lieux yi parce que prévoir oon nañu ay milliards foog naa cinq milliards pour études yi foofu war nañ ko jëlee ci am agence de l'aménagement du territoire. ñoo xaalis boobu. ah ñooñu lañ jox xaalis ñoom bokkoon nañ ci ñi nga xam ne nii. dañ leen dañ waaw dañ leen a prévoir oon ci loolu. foofu dem nañu fa ak feneen ak feneen. d'accord mais mais mais, mais mission d'information c'est-à-dire euh, kuréel googu ñi ko bokk yéen waa benn bokk yaakaar kese la wala am na ñeneen. opposition bi mu ngi ci non aligné euh, euh, non inscrit yi ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar mu ngi ci maanaam ñi ñi constitué assemblée yépp opposition non inscrit ak majorité ñu ngi ci commission d'information. léegi bu ngeen paree lu ngeen def rapport ngeen di def. waaw rapport la ñuy def bu ñuy jébbal président d'abord dañ koy jébbal député yi jébbal ko président de l'Assemblée nationale président de l'Assemblée nationale jébbal ko exécutif bi. mais dangeen ko fësal rapport bi. loolu mu ngi dépendre ci. waaw mais euh, mais honorable euh, li ngeen di fësal yéen dafa mel li ngeen di fësal bëriwul de. seen rapport yi xam nga fi ñu toll nii. suñ ko joxee député yi. ça veut dire que di ngeen ci jot. mun nañ koo jox cent suñ rapport bi suñ ko joxee cent soixante cinq député yi di ngeen ci jot. d'accord mais euh, euh, tey ñi ànd ci enquête parlementaire xam nga yaa ngi may wax ne ma euh, député yi dañoo bër. comme mën naa koo tuddee noonu. dañoo bër bër maanaam ñoo xamante ni tey toll nañ jamono joo xam ne jamonoy vacances la wala. Ah, wala pour ñu mën a comprendre ñiy déglu. mais enquête ubbi si enquête parlementaire du lu jàmp mënoon nañoo bàyyi ba député yi reprendre ñëw assemblée nationale ñu ubbi si enquête enquête parlementaire ndax jàpp naa ne euh, lu mu diis diis diis tey euh, su dee defoo dara wala liñ la dénk jàpp nga ne jaarale nga ko si yoon war nga pare pour leeral. xam nga pour man enquête parlementaire du wees mukk mhm. léegi mbënd mu lu toll ni mbënd mi. ak tragédie bi am ci mbënd mi ñu toog intercession bi xaar ba session bi ubbi ñuy soog a liggéey man rafetluwuma loolu segam euh, ñu ngi ci intercession te mun nañoo defagum mission d'information defagum mission d'information man foog naa ne looloo gën a jaadu daal looloo gën a jàmp euh, ñu wax ci euh, li nga xamante ni tey moom moo jëm ci njiit réew mi di président Macky Sall moom dañ koo gis mu ne Euh, pare na ci bépp sénégalais bu bëgg a débat ak moom ci mbirum inondation yi ak assainissement mais particulièrement à l'opposition euh, kàddu yi président Macky Sall yooyu ndax yow d'accord nga ci. d'accord naa ci en fait daa wax loolu mais même débat ci inondation yi mu ngi am ci rajo yi ak ci télé bi yow invité nga ma fii maa ngi wax ci inondation yi mun ngaa invité. koo xam ne nii mu ngi ci opposition bi mu wax ci inondation yi c'est-à-dire débat ci inondation yi mu ngi am te débat du débat télévisé rek nekkul ne président de la république day toog keneen toog télévision ñu naan dañuy débat déedéet débat dafa bari forme looloo tax man d'accord naa ci carrément parce que inondation yi Sénégal yépp la concerné te nu sommes un pays démocratique lépp la ñuy débat te débat ci inondation yi mu ngi am bet mu c'est en train de se dérouler pour man loolu amul benn problème. mais mais euh, ñenn Sénégalais yi dañoo jàpp ne président Macky Sall bu waxee ne pare na pour débat ak opposition bi maanaam muy muy toog débat ak ñoom gis nañ day ko si mel ni Habib Sy Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall Ousmane Sonko nee nañ pare nañ pour débat ak Macky Sall. non xam nga pour man débat ak Macky Sall. du débat télévisé président Macky Sall toog Thierno Alassane Sall euh, Thierno. Alassane Sall euh, ala mbaa keneen toog ci télévision bi ñu naan dañuy débattre déedéet pour man débat mun naa am forme yu bari actuellement ci inondation yi ñii ñu ngi wax ci rajo bi thèse yëpp ñu ngi koy dégg ci rajo bi ñi nga fo ñi nga xam ne nii dañu naan inondation yi c'est dû au changement climatique. gouvernement bi am na lu mu def lu bari lu baax am na lu li mu def am na lu ci des ñi neen ñi nga naan ñeneen ñi naan sedd la faute du gouvernement tout est de la faute du gouvernement ku ci nekk yaa ngi wax ci rajo yi ci télé yi ak ci journaux yi. d'accord léegi euh, ci télé yi ak ci journaux yi euh, Ousmane Sonko ak Mansour Faye gis na ne ñoo ngi xuloo euh, ñoo ngi sànnante ay tract ndax Ousmane Sonko dafa wax Mansour Faye di nga wuy ji of nag. ci 69 milliards yi nga xam ne dafa am ñu ko si porte plainte moom mu ne jàppul ne war naa wuy ji of nag ba coow li bari ci la ko Mansour Faye waxee ne doon ko sàkku audience ma nekk intermédiaire sa diggante ak président Macky coow loolu yow euh, nan ko gisee en tant que responsable politique. mënuma cee wax dara. maa ngi dégg ni nit ñiy déggee. ci rajo yi ak ci télé yi mais Mansour su waxee. aw aw man amuma ci benn commentaire. ci loolu maa ngi koy dégg ni ko nit ñiy déggee. maa ngi koy suivre ni ko sénégalais yëpp di suivre awma ci benn commentaire bu ma bu may def. Euh, honorable député euh, Nicolas Ndiaye la ñu invité moom mooy secrétaire général bu euh, LD Ligue démocratique ci seen émission pencum euh, réew mi euh, ñu wax nag ci li nga xam ne moom mooy dialogue euh, dialogue politique bi ak dialogue national bi léegi jaloog bi ndax bi ñu koy doog di taxawal li nga si doon séentu bi mu déroulee ay weer effectivement gis nga ne euh, yaa ngi ko ci gis wala. waaw d'abord bokkuma ci ñi représenté nguur gi ci dialogue bi. Mm-hmm. duma bokkuma ci commission yi mais maa ngi bokk ci secrétariat exécutif permanent wu Benno Bokk Yaakaar suñu représentant yi dañuy. Euh, loolu luy bi. xam nga secrétariat exécutif permanent wu Benno Bokk Yaakaar. juróom ñett juróom ñetti ndaw la yoo xam ne ni président Macky Sall ñoo ko moo leen tànn pour ñu nekk intermédiaire diggante conférence des leaders maanaam leaderu parti yi ak base Benno Bokk Yaakaar intermédiaire boobu mooy secrétariat exécutif permanent. ci kuréel googu la bokk. waaye teewaluma woon Benno Bokk Yaakaar ci dialogue bi. Mhm. kuréel googu nag. ñi teewal benn Bokk Yaakaar ci dialogue bi dañ ko doon rendre compte régulièrement moo tax gis nga dialogue bi li li mu dialogue politique bi résultat yi weesu na sax sama njort te dama koy rafetlu dama la bëgg a expliquer rek euh, tuuti importance su dialogue bi gis nga bi ñu tànnee euh, Ibrahima Famar Ibrahima Sagna il y presque un an dafa am koo xam ne nii ci opposition bi la bokkoon mu ne gis nga lii ñu def tey opposition beeg pouvoir beeg euh, non aligné yi tànn kenn ñun ñëpp ñu d'accord ci mënuta am Mali loolu la waxoon keroog gis nga euh, événement yi ñëw dañ koo jox raison gis nga euh, am réew waxtaan moo ko yore soo seetloo réew yi ñu wër yépp ak yeneen réew yi ñu ngi ci instabilité ñu ngi ci ay problème ethnique seetlu rek bëgguma tudd benn réew ndax muy indi ndax bu ndax euh, mu bañ a indi problème waaye seetlu réew yi ñu wër yépp instabilité ba instabilité ba coow ba fa am fitna ga fa am Sénégal loolu amu fi mieux encore 1960 ba léegi Sénégal mosta am coup d'état démocratie bi mu ngi dox ni mu war a doxe mu am ñaari alternance yoo xam ne nii ay alternance démocratique la ay alternance pacifique Sénégal mosta am problème ethnique waaso yi xeet yi dañuy duglante ni mu waree mosta am problème religieux chrétien musulman dañoo juboo mosta am problème confrérique ah kilifay diine lan moo tax loolu mhm. mooy dañoo am culture tolérance am culture paix am culture dialogue moo tax loolu dañ ko war a sàmm bu baax léegi nag dialogue bi ci ah. boppam mhm. am nañ vingt cinq points d'accord mhm. un seul point de désaccord loo xam Euh, président de la République, chef de parti et en même temps chef président. Waaw, non, non, pas chef de l'opposition. Président de la République, chef de parti et en même temps chef de l'État. point boobu la ngeen d'accord. waaw point boobu lañ d'accord dafa am aussi am na yeneen i déedéet boobu d'accord ñu ci loolu dafa bokk ci les points yoo xam ne nii dañoo war a wéyal waxtaan wi. waaw. d'accord léegi léegi non euh, Nicolas yan point yoo xamante ni tey waxtaan ngeen ci te d'accordu leen ci di wéyal waxtaan wi euh, ci euh, point chef de l'opposition ci la bokk ak yan waaw ci ci ci point yooyu point sur le chef de l'opposition ak statut de l'opposition ci la bokk waaw dañ ko war a waxtaane waat mm-hmm. léegi li ay affaire bulletin unique par point yi xam mot nañ sept ou huit points ay affaire bulletin unique ak yeneen yoo xam ne nii dañ koo war a waxtaane waat dañ koo war a dañoo war a wéyal waxtaan wi waaye am na ñaar fukki poñ ak juróom yoo xam ne nii d'accord nañu ci benn point boo xam ne nii d'accord ñu ci ak juróom-ñaari point yoo xam ne nii dañoo war a wéyal waxtaan wi. mais loolu juróom-ñaari point yi ngeen di wéyal waxtaan wi. fàttalikuwuma ko yëpp. d'accord mais mais mais tey euh, Nicolas Ndiaye euh, point bii di euh, institut chef de l'opposition tey ban ban problème moo ci amagun. c'est-à-dire opposition bi da cee amul xalaat da cee jébbal dafa ko jébbal. président de la république ñenn ñi pour ñoom chef de l'opposition mooy ki jiitu assemblée nationale ñeneen ñi chef de l'opposition dafa war a nekk ki ñëw deuxième à l'élection présidentielle waaw léegi ñun Benno Bokk Yaakaar li ñu xalaat mooy mooy ki war a ñëw ki nekk deuxième à l'élection présidentielle opposition bi amu ci xalaat c'est-à-dire jubóowuñu ci dañoo jébal mbir mi président de la république pour mu trancher ko mm-hmm. waaw mais dans tous les cas mënuñ ko wooye point de désaccord point boo xam ne nii dañuy wéyal xalaat yi loolu la euh, uh-huh. donc pour man li ëpp importance mooy am réew quelle que soit position nit ñi opposition majorité société civile et cetera d'abord ñu d'accord toog waxtaan ça c'est très important deuxièmement suñu même suñu jubóowul ci dara toog waxtaan rek déjà c'est quelque chose d'important deuxièmement ñu juboo ci ñaar fukki poñ ak juróom moo tax gis nga euh, élitu Sénégal bi muy classe politique bi muy societé civile bi dañ leen a war a delloo njukkal gërëm leen muy opposition muy majorité muy non aligné muy société civile Sénégal classe politique bu muur lañu am te loolu la ñu wone depuis bi ñu amee indépendance léegi moo tax loo xam ne nii dañ ko war a fonk parce que loolu mooy gage de paix de stabilité ci suñu réew looloo tax Sénégal nekk exception ci sous ci sous région bi nekk un nilo de paix et de stabilité dañ ko war a jàpp ak ñaari loxo Euh, lu jëm ci euh, élection locale yi euh, ci seen dialogue dialogue politique bi élection locale yi ndax yow jàppoo ne techniquement mënuñu ko ñàkk bañ a dàq. pour man techniquement foog mënuñ koo bañ a dàq waaye segam mu ngi ci dialogue bi dañ koy boole ci dialogue bi rek waxtaane ko. li nga xam ne nii ñëpp dañ koo bokk mais est-ce si dialogue di jaay doole tamit. déedéet suñ doon jaay doole opposition bi wax ko. suñ doon jaay doole opposition bi ñu bokkal dialogue bi dinañ ko wax dinga ko dégg nit ñi dañuy waxtaan bi juboo suñ ne ñaar fukki poñ ak juróom la ñu d'accord ñëpp da ñu cité ñaar fukki poñ ak juróom yooyu koo xam ne nii d'accordu ci dina ko wax ci rajo bi mbaa ci télé bi. d'accord c'est ça. jërëjëf euh, honorable député euh, Nicolas Ndiaye euh, moom la ñu invité tey ci réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu léegi ñu wax ci li nga xamante ni nag moom moo jëm ci LD ndax seen partie bi LD yéen a ngi waajal élection législative. élection locale yi. élection locale. waaw waaw ñu ngi koy waajal bu baax. ñu ngi koy waajal ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar mais suñu camarades yi ci terrain bi ñu ngi continuer li ñuy def ba nga xam ne nii ñu ngi koy waajal daal mm-hmm. waaw. Euh, nan ngeen koy euh, nan ngeen koy waajalee bu ñëwoon tey est-ce que yéen pare ngeen pour ànd ñeneen ñoo xamante ni bokkul euh, ci benn bokk yaakaar wala bokkul ci yeneen parti ndax xam nga élection locale leneen la man ngaa bokk nekk LD gox bi mu nekk waa réew mi nekk fa waa PDS nekk fa waa per nekk fa ñu booloo am benn am benn kandidaa ndax loolu yéen pare ngeen pour def loolu. waaw élection locale yi nuñ dencee am benn doctrine daal. maanaam. ñun ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar benn parti mënatul a dem yow rek bon ñu ànd ak Benno Bokk Yaakaar moo ñu gënal waaye nag suñu demee ba nga xam ne nii euh, loolu c'est pas possible soit parce que localité yi dañoo wute réalité yi ci localité yi dañoo wute mais li ñuy wax suñu camarades yi mooy ànd ak Benno Bokk Yaakaar moo ñu gënal léegi nag suñu demee ba nga xam ne nii loolu c'est pas possible maanaam ñu def benn dànk à l'impossible nul n'est tenu ku ci nekk xam ni ngay boppe ni ngay toje sa bopp ji na. waaw mais ah mais lañ gis euh, moom mooy tey commune yu baree baree baree bari APR ñoom euh, li leen ñëpp yi tuumaal mooy ñoom dañoo bëgg di séddu. Euh, bis bu set ndax commune yu bari APR day fexe ba teg fa ay nitam naam am na commune yoo xamante ni LD mën na fa ëpp doole wala tey AFP ëpp fa doole wala parti socialiste ëpp fa doole mais Macky sàll ak non seulement pour bëgg a suqali parti APR dina fexe ba weñ loxoom ña fa nekk teg fa ko bokk APR ndax yéen loolu di ko nangu. xam nga fi ñu toll nii man mënuma la ne dinañ ko nangoom duñ ko nangu parce que collectivité locale yépp bokkuñu réalité cent cinquante 557 collectivités locale collectivité locale bu nekk ak réalité léegi nag ñun suñu doctrine mooy ñi bennoo bokk ñi bokk bennoo bokk yaakaar yépp nañu toog waxtaan wut candidat unique candidat consensuel loolu moo ñu ci mën a génne ñu toog waxtaan wut candidat consensuel léegi nag euh, su dee am na ay localité yoo xam ne nii dañoo bugg a def euh, séddale bukki maanaam lii bukki lii njuur bi sàmba bi ku ci njëkk te teg naa ci sama loxo ñun duñu d'accord ci loolu suñu camarades yi duñu d'accord ci loolu mais si dialogue politique bi euh, Nicolas Ndiaye euh, dañu doon wax ne xam nga bu njëkk mën nga jiite benn benn liste ci élection locale ba pare doo nekk maire est-ce que problème boobu réglé wu na ci dialogue politique bi waaw am na consensus consensus bi mooy léegi maire bi ki nekk premier sur la liste majoritaire mhm. moom moo nar a nekk maire premier liste bi gagné mhm. premier sur la liste majoritaire moo nar a nekk maire loolu ñëpp d'accord nañ ci ci con ci point d'accord yi ci dialogue bi la la la bokk bon à partir de cette des prochaines élections premier liste bi gagné premier sur la liste majoritaire moo nar a nekk maire. léegi nag premier ak deuxième adjoint bi dañ koy tànn niñ ko daan tànn rek élection lay doon ci conseillers yi. mais élection locale euh, ñenn ñi ñoo ngi wax ne mën nañu ko boole ak élection législative. fi Sénégal toll ak jafe-jafe yi nga xamante ni mbas mi teg na ko réew mi euh, financièrement bu passé techniquement ñu war a auditer fichier bi ak euh, yu demee noonu mais financièrement est-ce que Sénégal tey am na xaalis pour organiser ay élections locale organiser après ay élections législatives presque élection présidentielle toppaat ci bon loolu man xaw ma ndax am nañ xaalis beem déet ministre des finances moo mën a xam ndax am nañ xaalis beem déet mais dans tous les cas pour bi njort ah njort ndax njort nga ndax jàpp foog naa ne am nañ euh, waaw njort naa ne c'est possible. mais dans tous les cas segam loolu dafa bokk ci programme waxtaanu dialogue bi cla classe politique bi su at su su jotee dinañ ko waxtaane te foog naa ne dinañ juboo ci loolu soit dañ koy couplé soit ñu bañ koo couplé loolu daal yoon wi. yoon wi daal jël nañ ko c'est-à-dire lépp loo xam ne nii mbirum élection la dañ koy toog waxtaane te foog naa ne suñ toogee waxtaan ko dina am consensus. ñu lay sant di la gërëm euh, Nicolas njaay honorable député lan ngay tàggoo. d'abord maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen réew mi. Euh, réew mi FM yi ma invité fii yow Abdou Khadre maa ngi Abdou Khadre Seck mm. maa ngi lay sant di la gërëm te. di nuyu di continuer di eh, nuyuwaat eh, sama camarade militant yi LD yi ci territoire nationale bi yëpp secrétariat bureau politique ak no secretaire généraux de fédération ak eh, tous les militants de la LD di yaakaar ne waxtaan wi ñu waxtaan dina leen amal njëriñ dina amal njëriñ réew mi jërëjëf euh, Nicolas Ndiaye euh, honorable député mu nekk secrétaire général euh, Ligue démocratique du LD moom la ñu invité woon tey seen émission pencum réew mi muy am samdi bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu ngeen di ak ànd ak Abdou Khadre Seck du Diaw jàll moo nekkoon ci wàllu technique bi ñu leen di jox di daje samedi bi di ñëw jërë ngeen jëf.